haditu anil mawla As-Samadiyya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wooteem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu naafi' di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalix ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm As-Samadiyya TV di seen télévision bu mag bi disponible na ci TNT IPTV Rookie Play Store Seetaan Média ak ci mbooleem plateforme yi ak réseaux sociaux yi 24 TV daal mooy kër gi leen di woon dëgg ak njariñ njariñ بسم الإله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزل حمدا لمنزل الضنا والداء ومنزل الشفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليدفعوا بي عن البلاء ثم على من حيث مس ذا مرض يبرأ بلا بطء وفاز بالغرض محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلامي ربنا الكريم والآل والصحب ذوي العلاء ما احتاج ذو الأسقام للشفاء bokki jullit yi bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu fii ci seen télévision As-Samadiyya fii ci Madiyana 6 ci ëttub Serigne Abdou Samad mbakke moom Serigne Chouaïbou di wax ñépp asalaamu aleykum wa rahmatullahi di jiital ci nuyoo bi alxalifatul am li taifa al muridiya al cheikh mohamadin il muntaqa xafidahu llahu taala wa di ko ñaanal yenn bi nga xam ni sun boroom yenn na ko ci wara yee salaat li nga xam ni mooy la maamam ju baax ja nekkoon di cheikhul xadim te mooy wéyal euh, toolub lislaam bi gën ko leeral yàlla na ci am lu kawe njortam yàlla na ko sun boroom kartanal mu def ci lu kawe njort noonu lañ koy ñaanale rakkam yépp rawatina ki nga xam ni moom lañu toog ci keppaaram moom muy Cheikh Abdou Samad mbakke moom Serigne Souhaïba mbokk yi ñu ngi fas yéene amal jotaay boo am solo lool boo xam ni mënees naa wax ni jataay ëpp ko solo ndax eh, sujet bi ñu war a waxtaane moo tax muy lu jëm ci wàllu médecine diggante Seex yi bu Mbacké ak médecine euh, médecine nag suñ ko waxee dafa séddalikoo ñaar dafa am lu ñuy wax médecine traditionnelle muy wàllu goo xam ni moo fi jiitu doomu aadama it moom la njëkk a xam ndax li ko sabab mooy bokk na ci jafe-jafe wala problème yi yàlla njëkk a doomu aadama ngir xam-xamam yeewu mooy problème gu di loola nag di dox di dox di dox ba xam-xam gën a avancé médecine moderne juddu def moom it benn évolution bu gaaw lool boo xam ni fa médecine traditionnelle mënul woon a àgg moom mën na fa àgg te mooy mën a xam dëggi dëggi lu nekk ci biir yaramu doomu aadama ak feebar bi lu ko causé ak fan la placé wu ak naka lay évoluer ci biir yaramu doomu adama waaye dem ba mën a kar tawat yooyu looloo tax nag ñu boole ñaar yooyu tey ci suñu jotaay bii muy jotaay bu am solo ñu boole médecine bi nga xam ni mooy médecine traditionnelle ak médecine moderne ci biir loolu nag ci la ñuy jaare présenté leen koo xam ni euh, ku yàgg la ak euh, njabootu Cheikh Mat Bamba Khadimu Rasoul muy docteur Anis mi nga xam ni képp koo xam ni mag nga ci Touba ràññee nga ko rawatina njabootu Cheikhul Khadim gi mu nekk koo xam ni ku ràññeeku la ci wàllu pàcc waaye nekk koo xam ni ku ko sellal la waaye nekk koo xam ni ku taqoo woon la ak son sëriñ Souhaïbou mi nga xam ne tey jii waxtaan wi ñu ngi ko tuddee médecine ak son sëriñ bu mu woon ak moom daan waxtaan ak moom ci lu baree bari euh, ñu ngi koy dalal docteur Anis wara seq ak moom waxtaan wi waaye ci geneen wàll ni mu ko waxee médecine traditionnelle ñu am ci gan gu ñu ràññee lool ci wàll googu muy docteur malik Guèye di ko xam ne moom it képp kuy suivre As-Samadiyya gis nga ko ci wàll woowu yàlla may ko ci mawhiba lool moo am ci donation bu màgg a màgg naka noonu ki nga xam ni mooy tóor Mamadou Mbaye moom it Mamadou Guèye moom it teew na nii war a bokk ci ñi nga xam ni incha allahu taala dinañ def contribution bu ñu demee ba waxtaan wi war a jeex naka noonu ñoo ngi fi ànd ak Serigne Abdoulahi Guèye moom it di mbokk Serigne Malick Guèye ci wàll googu di kuñ ci naw lool ndax ñu ngi jaxasoon moom ci wàllu médecine traditionnelle Serigne Abdou Samad nag am xalaat bu am solo ci bëgg a boole démb ak tey euh, muy lu am am solo ndax dafay mel ni des fois équilibre da am da ngay gis ñoo xam dañuy buur lool ci wàllu médecine traditionnelle ba fàtte médecine moderne bi nga xam day bokk ci li sun boroom waxoon ni wa allama aadama al kullaha waaye tam dangay gis ñoo xam tam dañuy buur lool ci médecine moderne ba sikkal wàll gee kon dana baax ñu jël balance ub tey bi peese ko muy teg ñaari balance yëpp kenn ku ci nekk ci ñaari balance yooyu indi nañ ci koo xam ni am na ca xam-xam bu wér te niñ ko waxee ñaari wàll yëpp lu ci nekk nit def naan jëfandikoo naa ko gis ca njariñ gis ca mu faj ma su ko defee waxtaan wi incha allahu taala dañ ko fas yéene ubbi doore ko ci euh, xam naa dañ koy doore ci euh, docteur Anis xam naa bu fekkoon dañ koy classifier wàllu médecine traditionnelle la ñuy njëkke ndax jiitu gi mu fi juutu waaye nag docteur Anis day koo xam ni mag la ci wàll wi njabootuk sëñ Tuubaa gu baree bare bari mu séq ak ñoom lu jëm ci wàllu googu sànq rek sëñ Abdou Samad Mbàkke moom sëriñ Souhaïbou mi ngi wax wax joo xam ni lépp rek day wone dégg nga waxi sëriñ Tuubaa ni muy làq zahir ak baatin muy wax joo xam ni sëriñ bi daf ko wax ca matlabu alfawzayni nga xam ni mooy làkkook Tuubaa nga xam ni aspect boo jël ci wàlluk dund gi sëriñ bi tudd na ko ci matlabu fawzayni muy aspect social muy aspect commercial muy aspect familial muy aspect scientifique muy aspect médical ci biir aspect médical boobu sëriñ bi bi muy ñaan boroomam dafa wax ni wakun anisi wasfini mina saqam yow sun borom na nga nekk sama wéttal te nga saafara ma ci ay jàngoro te docteur Anis mooy docteur bi njëkk a ñëw ci tuubaa ci wàllum paj ci wàllu pajum moderne te sëriñ bi ba muy wax dani wa kun anisi daal di koy lëkkaleeg nag washfi nii yow sun borom nekkal sama wéttal waaye boo jëlee baatu anis ci zahir si moom mooy aw turam mu lëkkale koog nag washfi nii mi na saxam te nga saafara ma ci ay jàngoro kon hasard amut foofu li borom xam-xam yi di wax ni rien n'est hasard yàlla dogal moom docteur anis muy premier docteur bi nga xam ni ñoo ñëw fii ci Touba di yëngu ci wàllum paj su ko defee docteur dañ lay jox kàddu gi bàyyi la nga nuyoo euh, euh, nuyu bokk yi nga xam ni ñooy seetaan ñu jox docteur Malick mu nuyoo ñu door ñëwaat ci yow incha allahu taala ak question yi nga xam ni moom la ñu bëgg a posé bismillah auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah assalaamu salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di jiital ci nuyoo bi Cheikh Abdul Samad mu tegal na ko ci xalifatu aam sëñ Muntaxa ak ay magam ñu sëñ sooy bu jaboote ñëpp ka ca booba di sama wasila sëñ Cheikh Say jërëjëf ci dalal gi nga ñuy dalal sëñ bi ndax li nga ko waxee rek xam naa sàmproom dimbali nañ ci loolu ndax bi ñu may jël bi may indi fii de jot naa jox sax ngànt ndax booba Missirah laa nekk Missirah nekk euh, village buy xaw a amoon tur te yaatu ma amoon dispensaire ba noppi am logement te booba Touba amagul amagul dispensaire amagul logement biñ ma waxee ni ma ñëwul wuyu xaw naa gàntal ndax boobu damay door am soxna <laughs> te bëggoon logement ba nekk sama loxo te jàppale ma ci waaye daal ñun xamal ma ni ma daal. dama nga wuj ji rek <laughs> ba tax na loolu moom ñu ngi ci sant bu baax a baax ni ko sëñ Abdou Sabar waxee léegi rek mbiru sëñ Tuubaa la kenn xamul rek la kenn xamul jërëjëf. Euh, jërëjëf euh, docteur ci présentation bu am solo boobu nga xam ni euh, laalaale nga ci dara ci histoire ci sa ñëw tuuba ñu ngi sant bu baax a baax kon noonu ñu ko waxee dañuy jébbal kàddu gi docteur Malick Guèye. moom it di ku ràññeeku di ku ñuy suivre lool. waa sëñ Abdou Samad day laaj loolu ban année la dëppool. Mhm. waaw day tolloo xam naa rek bi sëñ Abdou laa jëlee mbir mi soixante-dix ñun lañ fi ñëw ndax sëñ Abdou laa dafa jël xalifa gi rek wax ni nañ ko wutal hôpital moom pour hôpital la wax te booba. gouvernement bi amagul woon luñ ko mën a defee ñu ñaan ko ni ko daal dañu fiy fexe ba indi fi ay nit en attendant ba hôpital di taxaw waaye 70 incha allah lañ fi ñëw man ak mbay gay itam nag ca hôpital euh, ca marché Ocass waaw sonadis bu njëkk bo waaw noonu la <laughs> waaw 109 110. Euh, macha allah muy lu am solo question boobu Serigne Abdou Samad posé muy. Eh, loo xam ni day gën a feddali ak ñëwam fii muy lu yàgg muy at mi nga xam ni ci la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké jot xilaafa gi nga xam ni ni mu koy waxee bi mu fi ñëw sax hôpital amagu fi su ko defee kon docteur Malick ñu jébbal la kàddu gi yow tamit nga présenté wu nuyu mbokk yi nga xam ni ñooy suivre jataay boo am solo bi. aouzu billahi samil alim min sharri sheytaan rajim bismillahi rahmaani ñu ngi sant yàlla ci jataay bi di nuyu kilifa gi sëriñ Abdou Samad moom mi waral jataay bi Oustaz Lamine ñu ngi lay nuyu ci présentation bi waaye noonu la ñuy nuyoo itam docteur Anas Seck xam naa ne sekkeen gi rek moo ko xaw a yàq sëñ bi xam <laughs> naa ñu gaaw a jotaay bi ndax moom day mel ne xeeti kii yooyu ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax di ziare suñu abo di nuyu docteur euh, yaakaar naa ne Guèye la sant Bey docteur Bey ñu lay nuyu baax. xam naa mu mel ni rek kon comme dafa xaw a guddi ñu daal di jublu ci liggéey bi rek kon al imaam bisimilah. waa kay jërëjëf docteur Malick géey ci présentation bu am solo boobu xanaa di fàttali ni euh, monsieur Mamadou mbay mi moom Mamadou Bey moom euh, mi ngi. leeral ni du médecin nekkul docteur waaye nag mënu cee génne boppam ndax li muy yëngu moo tax te mooy équipement médical yi nga xam ni day faral di ñëw ci institut Pasteur la mu fay yëngu mooy équipement yooyu ñoom ñoo koy saytu xool ko ñoo koy saytu xool ko muy jumtukaay yi nga xam ni moom la ñuy eh, faral di faje di ko jëfandikoo ci wàllum médecine moderne ñi koy saytu ci la bokk soo defee ñu ngi koy dalalaat bu baax euh, kon directement rek noonu ñu ko waxee waxtaan wu am am solo li tax ci ubbi gi ñu ni waxtaan ëpp ko solo jotaay ëpp ko solo mooy li wolof di lépp ni bala nga ni naam ne fa euh, doomu aadama mënta def dara lu dul ni dafa am wérug yaram moo tax dañuy fekk yonent yi ci alquran suñ borom di nettali ñu ko daan ñaan yàlla bu ñu masaana tawat fekk alquran tamit jëfandikoo baatu shifa bi nga xam ni moom la nit soxla ci bu ta feebaree mu jëfandikoo ko ay yoon yu baree baree bari ci siira yu bari indee na ko ay asma indee na ko tamit ci ay fi'lu mudaari muy lu am am solo loolu nag day tegtale makaana bi nga xam ne ni wàllum pàcc am na ko ci lislaam waaye rawatina ci dunduk doomu aadama soo defee doctor euh, Anis euh, suñu laaj bu njëkk bala ñuy xuus ci waxtaan wi mooy bëggoon nañu nga indil ñu tuuti rek ci si sa diggante ak ki nga xam ni moom la ñuy waxtaane tey muy yi bu ak médecine maanaam loo ñu ñu mën a leeral ci dund gi nga xam ne dund nga ko ak Serigne Souhaïbou bu ci wàllu woowu muy wàllu gi mu wàllu yitte woowoon li nga xam ni mooy wàllu wér-gi-yaram ak wàllum pàcc. médecine ak Cheikh Chouaïbou boo koy misaal médecine day mel ni cin cin bu am ñetti tànk bi ci jëkk di prévention benn bi di traitement beneen bi di insertion sociale bu ci nekk nag sëñ bi da cee def ay jéego yu rëy rëy rëy boo ñëwee ci prévention sëñ bi dafa jàppale ñun bi ñuy jëkkee tàmbali di war a def vaccination te vaccination amoon na solo lool ndax booba tawat yi nga xam ni am na ci daara yi lu mel ni ŋaas ŋàppateeg yu mel noonu lu mel ni vaccination rek en masse moo ko mën a moo ko mën a dimbali sëñ bi joxe ndigal ba noppi wax waa ñu ngi ko ñu ko ñu mu jabooti ñëpp nañu taxaw ci nangu ñu vacciné leen vaccination ci prévention la bokk te sëñ bi da cee jox ay jéego yu rëy rëy joxe ci ndigal bi ko ñaareel mooy jamono yu itam li ñuy wax pali paludisme daf fee bare sëñ bi te boobooy wax nañu ci prévention ni waakin da ci amoon solo sëriñ bi taxaw ci temm temm daara par daara fu ne dafa daan yónnee ay dafa daan yónnee ay potu Nivaquine di saytu loolu di awut ay jawriñ ñuy taxaw di ko jox xale yi bon na prévention benn ci tànku cin boobu la bokk boo jógee ci boobu nga ñëw ci paj mi paj mi ci biir kër gi nit mën na fee faju feebar faju ba wér du génn kër gi lu fàgg loolu nga xam ne armoire a nekkoon ci kër gi def fa ay bépp garab boo xam ni di koy soxla ci wàllu tawat euh, ñun ñii daawoon nañu yendoo man ak man ak bàll di saytu garab yi nuñ koy placé ba nga xam ni ku ñëw rek da nga mën a xam fan la tawat sàngam nekk nga joxe ko loolu bokkoon na ci yi nga xam ni da daan jàppale nit ñi ci wàllu wér-gu-yaram ak wàllu faj gi boo delloosee ci bi ko ñetteel muy bañ a ñetteelu tànk bi mooy ku fi mos feebar bu lay waj bu lay yeewi dana la boolee lu la mën a dimbali ci wàllu dund ndax boo boo feebaree lekkoo itam da ngay daanuwaat mu daal di daan jàppale ci ci ci fànn googu encore loolu lu ñu fekkale dugg la ak lu ñu dund la ak moom euh, ci wàllu euh, ci wàllu vaccination yi. dama doxantu ak bu nga xam ne dama dem Kigali Rwanda booba sama doom moom lañ fa affecté ma fekk fa colonel Asawla commandant Cissé Sarr munuma sëñ Anis euh, sama sama réussit ci en tant que régional ci Diourbel mi ngi bàyyi ko ci sëñ Chooy bu ndax moom dimbali surtout nag ci wàllu vaccination parce que boobu nit ñi nanguwuñu vacciné te mu ni mu xam mu xamal ma leeral ma ni ma maa ngi réussir sama région sama euh, nekk ci Diourbel grâce à sëñ Chouaïbou waaw wax na ma ko loolu ndeysaan loolu nag seere la bu am solo ko xam ni ndax moom promotion la ci am bi fi jógee dañ koy dénk màkka après màkka OMS jël ko loolu ko yu tax loolu ko yu mu dem info fale ci gaal yi loolu itam bëggoon naa mu ñu xam ko ñetti tànk yooyu daal la sëñ tu sëñ sooy bu daan dox bu baax a baax ci wàllu médecine moo tax bu ñu nee sëñ sooy bu médecine da ci daal di dugg bu baax a baax a baax jërëjëf. Euh, jërëjëf docteur xam naa euh, duñu bàyyeegul bala ñuy dem ci ci foofu nga duggee ci wàllu prévation ndax ku dem ci téere Qurratul Ayn bi nga xam ne sëriñ bi daf ko liggéey te sax même bu dul téere boobu. Eh, Serigne bu téere yim liggéey yëpp da ngay gis mu bàyyi ca benn pàcc ci wàllu wér yaram waaye équilibre bi ñu doon waxtaane sànq dafa feeñ lool ci am jàngaleem mooy yow médecine moderne ci nga ràññeeku ci nga def formation ba xëy ci am ci résultat yu ñëpp di teg loxo mu jaxasoog yow waaye ci biir loolu ci téere boobu da ngay gis muy joxoñ plante bi tam plant yi muy joxoñ gàncax gi di joxe orientation waaye ci biir loolu tam fàttewul côté eh, li nga xam ni mooy mystique muy pàcc boo xam ni ci wàllu fajit lislaam daf ko bàyyi xel muy lu mel ni jàng ay mbir raayoo ko wala jàng ay mbir tifli ko ci ndox naan ko loolu pas-pasub lislaam la ndax jàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mu doon ñetti pàcc yoo xam ni euh, boo ko xoolee dafay dafay mel ni ñenn nit ñi dañ jul am équilibre boobu waaye Sëñ Suwaybu bu da gis équilibre boobu ni mu feeñi ci moom mooy médecine moderne sànniwu ko li muy doon doon sëriñ boo xam ni mën naa jàng ci dara ci ndox tifli mën naa def ni yonent bi doon jàng jàng ci dara raay waaye dafa dafa bàyyiwaale xel wàll gi nga xam ni tamit mbirum sun borom la noonu ma ko waxee loolu lan nga ñu ci mën a wax muy équilibre boobu nga xam ni sëñ bu am na ko ci diggante ñaari ñaar ñetti muy moderne médecine moderne médecine traditionnelle ak wàllu mystique gi maanaam ndax mën nga ñu ci indil dara bala ñoo dem ci docteur maa liggéey loo xam ni dund nga koog moom ci yeneen wàll yële. moom de mel na ni daa nangu woon lépp rek ndax nitu daara la nitu xam-xam la itam. te xam-xam du bàyyi dara xam-xam bàyyi dara euh, wax naa leen léegi ci fànn médecine li mu ci daan doxal te teewul boo demee ci xuruta ay ni detaat mi ngi ciy junj yu bare bare yoo xam ni ci lu mu xamal boppam la ak lu mu gëstu ci wàllu xam-xam génne ko waaw li mm, ma ko waxee rek moom daal nitu diine la woon ak nitu xam-xam te xam-xam bàyyiwul dara looloo taxoon daanaka rek du bàyyi dara médecine da ci daan xuus bu bare bare waaye daanaa xuus itam ci médecine traditionnelle bu baax a baax a baax waaw. jërëjëf euh, docteur Anis ci leeral boo am solo boobu su ko defee niñ ko waxee waxtaan wi dañoo bëgg mu dem ci ñaari wàll yépp moo tax docteur Malick Guèye mi nga xam ni moom dafa ràññeeku ci wàllu li nga xam ni mooy waa bismillah. bisimilah ñu bàyyi sëriñ bi mu am question yu mu posé. xam waaw mhm. fuñ ci toll ci bokk na ci li ko dimbali ci wàllu médecine. Mhm. médecine moderne bi. Mhm. nangoo laaj. waaw. te luñ ko wax da koy bind. leen li am xelam da koy téye li gis bind ko. te ko fàtte. keneen ku ñu mu laajaat la. daanaka mën ngeen téeméeri médecin. waaw daa mujj may ko moom. mu am niveau boo xam ne. Mm-hmm. jàpp naa ne boo ko doon xayma tey docteur da am danga am kii diplôme boo koy jox. <laughs> waaw. ci ñaar fukki juróom wala fanweer. médecin bu ñu indi jur bi li mu njëkk def mooy seet si émission bi ndax day yëg ne ku bëgg médecine la. waaw am na ci docteur Lamine Fall wàcc ba ci yéen ñi. <laughs> ku fi ku ci njàngum alxuraan rek moom mën naa toog di wax ak yow bañ nodd ndax da la waaw ismaam moom mooy lan. te fekk laajoon na ko ma téeméeri la du la kii du la du xool ba xam dëppoo nga la nga wax ko waxoon ak yow. moom ni ñu koy fajee moom lu muy bañ lu muy dikkee ci nit noo koy xamee. yooyu la lay topp ba nga wax ko yu bëree bëree bëri mhm. boo ko defee yii nag laa jàpp mhm. nu mu ko daa jëflante ak yow noo ko jàngate yow <laughs> ku yàlla baaxee woon la ku yàlla baaxee woon la eh, ci wàllu médecine rek yenn saa yi da daan ñëw ñu indi ordonnance ñu xool ci kër gi ci armoire yi mu manqué fi waaye du bàyyi dama jékki-jékki ni ma ndax garab sàngam mënu ko wuutu te boo xoolee molécule bi nga xam ne moo nekk ca bale mi ngi ci bii ñu <laughs> bu composants yi la xamoon lool lool lool boo xam ne rek bu bu bosaani wax loolu dama yéemu sax yenn saa yi ndax <laughs> ndax eh, yeewute gi mu yeewute ci wàllu wàllu googu comme ni ko sëñ sama waxee rek ku bëggoon laaj la ku bëggoon laaj la te. yamul ci ñun infirmier yi ba dafa daawoon a dem ba ci professeur yi waaw te ñëpp yàlla sa borom dafa taxoon ñu ubbil ko ñoom tam seen bopp muy ñëw bu ñëw di ñëw ci moom di ko ziar si am na jamono dafa am tom ni wax ni par exemple dispensaire dafa war a nekk ci wetu population bi dafa am bés mu woo ma ni ma bu màggalee nit ñi dañuy bare fii te sama oto bi day génn lu bare bare te bu ñu dellusee dafay yàgg ndax mënuñoo créer dispensaire fii ci kër gi ma ne ko aw mun ma nuñ koy defee ma ne ko dañ koy wax amet si boobu moo tax moo nekkoon médecin régional nekk mu waayam lool nag itam lool bi mu ko waxee mun ma baax na dégg naa ko ñu teg ci ñetti fan euh, amet wooma ni ma sëñ bi kat neen dafa bëgg créer poste ci fii ba ci kër ga danaa lay yónnee dotation waaye nee na itam yaa koy teg yaa koy say saytu ko yaay toog saytu ko ma ñëw xool fi ñuy sañ sañ sañ ab yi bu daan jàngale euh, xam-xam ma ne ko fii de dana baax ndax comme de màggal lay doon te yenn saa yi màggal sëñ bi du fi nekk nañ ñu abal fii ñu ñu nekk ci nga xam ni juróomi fan ñetti fan avant màggal gi ak ñaari fan après ñun ñoo ngi foofu lañ daan nekk mun mosaan màggal nag man daatuma am soxla sama kër waaw daaw ma am soxla xale yi ñëw rek di ma rek di wax diw sàngam ñëw na wala nangam ñëw na waaye man fa laa dëkkoon rek damay ubbi sama lal ak sama yëpp rek waaw kooku moom <laughs> amoon solo la lu nga xam ni eh, mu moo ko moo ko xamal xalaatal boppam ni euh, dispensaire dafa war a jege population loolu moom lu amoon solo la bu xam ne dafa nokk allah jërëjëf euh, docteur ci leeral boo am solo boobu waaye jërëjëf Cheikh Abdou Samad. ci question boobu nga xam ni eh, indiwaat na yeneen i bunt yoo am am solo ci Serigne Sonhibou bi ma ci gën a frappé nag mooy bi nga xam ni ndigalul sun borom la te mooy fas fasalu ahla zikri une kuntum la la taalamun sun borom dafa bàyyi xel li ñuy wax spécialité nit ku ci nekk ak la mu wu sun borom nee na booy laaj demal ci kooka nga laaj ko ci wàllu googu fasalu ahla zikri lool rek la mooy kenn ku ci nekk am na loo xam ni yàlla bàddil na la nga xam ko léegi nag wàllu googa day baax nga bañ caa doxe li nga xam mooy talax talax sëñ son bu jàngale na loolu ci ak dundam ci diggam ak docteur Anis ak ñi mel ni moom loolu ñu war cee jàngate ñun ñi nga xam ni ñooy